mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax euh, yéen ñuy seetaan solution info TV ci 30 minutes chrono di leen gërëm bu baax di nuy ñëpp di leen ziar di am ndégte ci ni ngeen ànd ak ñun di rafet lu tamit seen taxawaay di rafetlu commentaires yi ah ak suggestion yi parce que wax ñëpp ànd ci yombul kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm. di leen sant di gërëm El Hadji Modou Diouf di gërëm Abdou Top euh, di nuyu ñëpp waa solution soy bu euh, Sanjogu Souka euh, maa jigéen Aïcha Assane Mbesere ak ñoom Kanji ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ba ci Souka ak Betty 30 minutes chrono nag Omar Bun Khattab Gueye di leen ko présenté chaque jeudi ñu fas yéene waxtaani actualité actualité rek la ñuy waxtaanee actualité bi nag li ci ëpp doole. mooy grève de la fin bu Ousmane Sonko ak li jëm ci digganteem ak DG ak fii su parrainage am yu ñu téye waaye yamul rek ci usmaan Sonko waaye képp ku ko jege sax wala bokk nga koy jàppale wala ñu yaakaar ni sax yaa ngi koy jàppale parce que des fois ñu foog ni nit ki Ousmane Sonko lay jàppale sax pourtant kooku liggéeyam rek lay def mais ñoom. jamono yi ku ne Ousmane rek pour ñoom foofu nga fare te ñàkk a xam sénégalais yi moo waral loolu sénégalais li mu gën a bañ ci àddina mooy injustice mooy par parparloo mooy tooñ sénégalais <coughs> bu la tooñee maanaam li naan Sénégal dafa bëgg victime bëggul victimisation mais bëgg na victime koo xam dañ ko tooñ néewul ko doole sénégalais pare nan pour taxawu ko jàppale ko loolu nag moo dar son ko mais ñi ànd ak Ousmane Sonko ñoom mënuñu am jàmm <laughs> jàmm moom buñ ko yaakaaree duñ ko am ñii dee nañ ñii dugg nañ ci kaso bi ñii ñi ngi leen di xorñoñal ñii ñi ngi leen di teg lu ne te loolu fekk nguur gi mi ngi fi ak système bi loolu du dañ képp ku ànd ak Ousmane Sonko am na ñu nekk bitim réew mënatuñu ñëw ci réew mi parce que dañ ne bu ñëwee ci réew mi ñu jàpp leen waaw boo demee commune bu mel ne Golf Sud Khadija Mahécor Diouf ba léegi mënul teg tànkam ci réew mi. parce que paraît-il que dafa seetoon borom këram di ñibbisi ñu jox ko ay xibaar na ko ñu ngi lay xaar ci aéroport bi boo ñëwee ñu jàpp la te koo xam ne ab élu la ñu fal ko ay nit fal ko yaakaar ko toog di ko xaar pour de raisons politiques ñu téye ko ca bitim réew te loolu lépp li ko indi mooy day xale bu ndaw dugg ci politique nekk Pastef ay Lat Diop nekk Géejawaay yor seeni milliards ñoom Aliou Sall ñoom ñëpp mu duma leen point final loolu rek lañ ko meree waaw parce que ay Lat Diop doonoo foogoon ñoom moom golf xale bi ñëw duma leen loolu nag daal Khadija moo dal ku mel ne ngañ Demba moo dal ku mel ne Ousmane Diagne moo dal keneen ak keneen ba ci sénégalais ya nekk ca bitim réew jàpp na ni képp koo xam ne yaa ngi bitim réew sax Pastef nga faral ñoom la lañ jàpp léegi nag loolu lu koy indi mooy li ma fas ne waxtaanee tey ginnaaw bu ma réfléchir ci grève de la faim bi mooy ñi jàppale Ousmane Sonko danoo am benn coalition bu nu jàkkaar lool coalition boobu nag Macky moo ci gën a tuuti Macky moo ci gën a tuuti Amadou Ba moo ci gën a tuuti dafa am coalition contre Ousmane Sonko loolu dafa am bari na sax ñi nekk ci opposition bi li may wax nii mus naa ko wax ci seenu Cheikh Baare def gis man leen yewi askan wi ba mu ko fay wax ñu bari ànduñu ci man leen yewi askan wi bii bari na ci ñoo xam ne seen bopp la ñuy liggéey liggéeylu Ousmane Sonko te buñ sañoon du doon candidat te boobu egguñu fii te jëguñ ko ci kaso bi ñii dem di dem ba bis ñëw Barthélemy Diaz génn ku rek Ahmed Aydara moo nu ko révélé mooy man Bart mii Bart di moom Ahmed Ousmane Sonko moo leen jox carte blanche pour ñu nekk candidat waaw maanaam ñoom bu nekkee kàndaa bu mën a doon maire kii di Ousmane Sonko la kii di Barthélemy Diaz tey jii mën nañ wax ni bokk na ci ñi gën a contre Ousmane Sonko est-ce que sóoroon ngeen ni Barthélemy Diaz bis dina ñëw. mu mel ni ak usmaan Sonko te ci ñaari defin yu ñaaw mooy xaar ba Ousmane Sonko nekk ci xat-xat ñu ne dañ koy atte ci mbir Adji mu génn xajamal cere ji wax lu ko neex dem ci ab tele ginnaaw déclaration mu dem ci ab télé wax lu ko neex ñu jóge foofu ñu ne jàpp nañ usmaan Sonko jamono jooju képp koo xam ne jege woon nga Ousmane Sonko ca ville de Dakar di ñëw Abbas Fall ak ñoom seen mu seppi leen yamun ci loolu nag yor làmmiñam lu ne mu yàq ko ay nitu Ousmane ko ba ci diaspora bi moom kooku léegi pourtant Ousmane jariñ na ko lu ne ay dara mënuma ko waxal dara mais nee na Ousmane moo ko jàppale pour mu nekk candidat mais teewul bi Ousmane nekkee candidat di uti ci moment yi Malick Gakou la dem jàppale ji loolu moom c'est un constat boo xam ne nit ñi def nañ ko loolu nag jëm ci coalition bi may wax naan coalition contre Sonko dafa am ci réew mi coalition boobu la nag ji nga mag yi moom desalul tul dara Ousmane Sonko yemuñu ci tuumaal ko maanaam tuumaal ko ba tuumay jeex ñu jël corruption de la jeunesse teg ci kawam dindi ko ci ay liste électorale yamuñu foofu tas parteem jël jëmmi Ousmane Sonko dugal ca kaso ba malgré démarche yi ñu ciy def yépp Ousmane Sonko ma nga ca grève de la faim seen yoon nekku ji Ousmane Sonko ma nga réanimation seen yoon nekku ji Ousmane Sonko ma nga lii di comment di xarxarle xarle loolu seen yoon nekku ji seen problème mooy moom na fa toog rek maanaam na fa dee am na sax ñuy waxee noonu loolu nag day egg ci mbañeel gi ak fi mu toll parce que tey ji bu ne Ousmane Sonko mënul am visite parce que boo nekkee ci grève de la faim prison wala yooyu da lay isolé ñu ne njabootam ak avocat am ñoo ko mën a jot kon tey jii li avocat di wax loolu lañ mën a doyloo li avocat di wax loolu lañ mën a doyloo léegi nguur gi aussi tamit bu ci waree tontu ngir weddi loolu mais administration pénitentiaire moo ci war a tontu wax ni grève de la faim bi dëgg la wala du dëgg ma nga réanimation wala ma nga fii di comment loolu administration pénitentiaire ak ñu yor Ousmane Sonko peut-être médecins yi mën nañ ci bañ a wax pour secret médical bi fi jëkkee def grève de la faim jógee Sébikotane jëm principal moom Ousmane Sonko mais Ismaïla Madior moo génn li mu wax ànd nga ci àndoo ci mais c'est une voix officielle autorisée à parler moom bu ci waxee war na ci wax en tant que ministre de la justice ak lu mu ci mën a wax nga ñàkk ci ànd ñàkk ci ànd mais bii pour lu tax ma ni la dafa am une coalition contre ko léegi ñi waroon wax waxatuñu mais ñi ci warul wax ñoo ci wax mooy ay journaux yoo xam ne jege nañu nguur gi moom la ñuy liggéeyal képp ku nguur gi sax bëgg a damm sa tànk wala mu faagaagal la di ay médias média yooyu boo deful nank PV ba lay taqalee sax di duma média yooyu dañ ciy joué pourtant ñooñu ñooy génn di tontu ci grève son ko naan stratégie politique la naan day tappale naan day lii naan day lee mais loolu day dellusi ci tontu bi. Cheikh Baara tontu woon mais bu dee ni loolu am na mais xanaa du euh, maanaam agent assermenté yi yu ci mel ne ay takk der maanaam maanaam médecin yi kon ñoom kon complice lañ ci tappale yooyu lan la nit mën a jiiñee loolu am médecin yow léegi tilimatoo son Sonko léegi médecin ya ko wër te loolu njëkkewul tey de coalition contre Sonko bii bu mbëkkewul tey te presse bi da ciy jouer rôle bu am solo xam nga lu tax ma ni presse bi da ciy joué bu am solo contre Sonko mooy bi docteur Alfousseyni Gaye ci mbiri aji Sarr waxoon ci certificat médical bi dem tribunal dinaa ñëw ci Falla Fleur ci kanam di ñëw dem tribunal wax ni viol amul wax daal la mu gis ca mbir ya mais bi ñu xëyee ab presse ay ay journaliste ñu lañ jox kàddu man maa ngi leen dégg te xam naa leen ñooñ moom ñu ma xam lan peut-être ñi bind la laa miinul mais ñi ci rajo yi xam naa leen mais ñu jox leen kàddu ñi weddi Alfousseyni Gaye ay journaliste laa wax de seeni Gaye mii xoolan Adji Sarr ba xam lan mooy nekk agent assermenté nekk gynécologue wax ni kenn violewul Adji Sarr mais ay journaliste ñoo gën di ko tontu journaliste yi ku leen yónni ñoon ci coalition contre Sonko bi lan bokk jour am na benn journal bi mu xëyee loolu la titré maanaam fenal seeni Gaye waxloo Alfousseyni seeni lu mu waxul ji nga nag mission boobu noonu ci mbiri Adji Sarr ci Ousmane Sonko ba ci de présidentielle 2019 ñu ne woon ay société pétrolière ñuy financer la campagne de Sonko te biñ demee ba ci biir xam ne dañuy kàcc waxuñu dëgg ji nga mission boobu ñu amoon am ko ci mbiri 94 milliards yeeg Mamour Diallo mission boobu ba tey jii mooy continuer maanaam di topp nit di topp nit ba mu tëdd ci lalu hôpital ñu naan dina dund wala dina dee mi ngi ci xarxarle xarle waxuma la dund ak dee mais kasoor xat-xat la maanaam loo topp nit ki fenal ko fenal ko fenal ko fenal ko mais bu demee ba dugg ci kaso yamatul kaso tëdd ci l'hôpital mais nga mën ko bàyyi ak ay mbokkam may ko jàmm li tubaab naan on ne tire pas sur une ambulance mais malheureusement Sénégal waxuma la ñiy dund mais ñii dee sax amatul jàmm kon ku fi feebar foo jëm mais est-ce que duñ doyloo li maître Ciré Clédor liy wax est-ce que duñ doyloo lool yam ci ba gi gis li parce que amul benn journaliste bu dem def investigation dem dugg foofu wala mu wax ak am médecin ci mbir Ousmane Sonko mais yow loo xamul dara nan nga koy weddee mais parce contre nga Ousmane Sonko am na ñooy liggéeyal ab mercenaire nga bu ñuy fay alal dudul jeex ngay kàcc lu ne nga dugg ci loolu di travail boo xam ne ñii di presse bi dañ koy def te loolu jaaduwul te tegul ci lenn parce que quand il s'agit de Ousmane Sonko maanaam duñ bind ci moom lu rafet duñ bind ci moom lu gën teg ci dañuy dem bay weddil nguur gi ci loo xam ne ñoo xamuñu ci dara ñun xam na ni métier bi foo Ousmane Sonko tëdd presse bi xamuñu ci dara li information yi nga mën a jot ki la ko mën a jox mooy njabootam te gëm naa ne njabootam waxuñoo noonu Ousmane Sonko yi keneen ku la ko mën a jox mooy ay avocam te kenn ëpp ci maître Ciré Clédor Ly kon tey ji jii ñooñu wax ci lan lay wax. kon loolu mu doon un travail boo xam ne ñoom dañ koy def Ousmane nag fu mu tëdd dama ko mës a wax nii nit am na fi muy toll ci àddina ndeyam rek mooy doon xaritam te Ousmane mun na toll foofu parce que boo gisee tey fi Ousmane Sonko ñi muy politique yëpp guddil na leen bëccëgal na leen ñi def na leen ay maire ñi def na leen ay député wax naa ko ci jamono mooy bi ñuy tànn maire ak député yi ma ni man bu ma sañoon Ousmane Sonko ay nitam lay tànn man waxoon naa ko te loolu am naa ci raison tey ndax bari na ñu mu tànnoon tey jii bi mu demee ba toll fii nekk ci kaso bi xeexaluñ ko de ña ngay lijjanti ay parrainage ñi ngi seen bopp te bari na ci ñoo xam ne buñ sañoon Ousmane Sonko mii du dugg prison du du dem élection coolee fi ne rek bari na ñuy sóob mais nag piège boobu ñu tàndul ñoom dañ cee daanu parce que ñoom li xalaatoon mooy bu ñu demee ba jamono parce que ñu bari ji nga li xew ci mbiri Adji Sarr ba ñuy wax ay contumax ak lii bari na ci ñoo xam ne ñoom danoo foogoon ni ak ni justice bi di doxee Sénégal bu ñu demee dañ koy condamné ne moo violé moo def menace de mort am na ñu jàppoon loolu jàpp nag ni. loolu bu amee mu doon une condamn condamnation définitive boo xam ne dóor nañ ko Ousmane Sonko ñoom dañuy bénéficier wu ci ndoddub wala ndonay Ousmane Sonko wala njabootu Ousmane Sonko te li may wax nii daf dama ci mos sa waxtaan ak benn candidat boo xam ne moom mi ngi ci parrainage yi tey ku ko jege ma waxtaan ak ku ko jege boobu yëpp xewul boobu mbir mbiri Adji saar mi ngi doog yëngatu fekk ñoom ñu jiiñoon leen ni danoo jege Macky sàll dañ ko maanaam Macky da leen dikk ay post wala yooyu ma dajeeg waa ji man ko grand yenn da ngeen nar a war Sonko xanaa ah mu ne mënuma ñi ngi xool ma ne ko grand ñu ngi xool leerul de doomu wax rek lan ngeen nar dangeen ngeen di fekk Macky li leen waxal dëgg la wala mu a fi mu ne nii dañuy xool lan moo xew mais pour ñun waa jo ci ab parti la ne de mu ne ñun sunu stratégie ñaar la mooy fekki Macky comme ni ko sa Seck defee mais boobu gis nañ ni gënul waaye poste bi ñu Macky Sall dig bu dee nit jot nañ ci dinañ mën a recaser suñuy jeunes jàppale leen parce que politique bu métti aussi dinañ am ay moyens boobu Idi dem na mais waa ji mujjul fekki Macky Sall mu ne moom mais am na beneen jeu boo xam ne tamit boobu mën nañ ci dàq suñu wërsëg. parce que Ousmane Sonko du bokk mu wax ma loolu te fu fu fu leaderam taxaw mu ngi naan non Ousmane dafa war a bokk mënuma Ousmane ñun dañoo gëm ne du bokk te bu bokkul mën nañu jarañoo électorat am di nga noonu waajooju xalaatee ci yeewi askan wi bari na ci ay parti yi nekk ci yeew yi loolu lañ xalaatoon parce que bu demee ba Barthélemy Dias taxaw mu ne Ousmane Sonko xaaral 2029 xale nga Idrissa Seck tamit wax na ko. xaaral mille vingt neuf xale xale léegi di bii Khalifa sàll mën a nekk candidat après comme yow xale nga deux mille vingt neuf nga lii kon ñoom ñëpp tey ji mu lu lan la lan quest ñoom ñëpp tey jii seen yéene moo doon Ousmane Sonko ne taxawul ne bokkul wala ñu ne bokkul ñu jariñoo électorat ñoom ñëpp tey jii loolu moo doon seen stratégie stratégie boobu nag doxul parce que boo xoolee ñëpp. Pastef dama ne Ousmane Sonko dafa am ay kii ay gros bébé gros bébé xam na gros bébé mooy mooy bébé yi taay yooyu am yaram yi du neex a boot mais Ousmane njabootam moom rek moo leen attan waaye njabootam tamit ci ginnaawam rek leen xaj est-ce que dégg baax fi may waxee njabootam moom Ousmane Sonko rek moo leen attan ndax danoo taay te ay gros bébé lan waaye tamit yemuñu ci taay waaye te usmaan Sonko rek mooy ki leen attan. loolu dama mës dégg benn politicien boo xam ne tey jii mi ngi ci Macky Sall ci Ablaye Wade la nekkoon waxoon ko ni ñun njabootu Ablaye Wade xajuñu ci ginnaaw keneen ndax ñun Ablaye Wade rek ca ñu attan tey jii nii mi ngi ci ginnaaw Macky <laughs> waa jooju ki waxoon loolu mi ngi ci ginnaaw Macky loolu def des fois mooy loolu. léegi nag Ousmane sonk système boobu mu jàkkaar loolu damay bëgg wax ni ci biir opposition bi tey jii li muy dund mais jekkoon na waa PDS def communiqué naqarlu li ñuy teg Ousmane Sonko ak li e def. waa PDS waxuma nit ku génn wax parce que un parti day wax ci voix officielle mooy bind métti du lii wax ni dañ ko delloo ay droit am dégg nañ Khalifa Sall mu wax mais du noonu du noonu bu waxee du safe parce que ba mu kooree wax waxu ko parce que bi ñu demee ci biir dialogue national bi mais lan moo fa xew mais bi ñuy modifier yenn textes yi ci code électoral bi. teg texte yoo xam ne day défavorable Ousmane Sonko ñoom ban veto lañ ci tegoon lan lañ bañoon li ñu waxoon ñoom mooy naa bokk rek naa bokk rek mooy man sama bopp ma yitteel moo ma ñor mais xalifa lu mu waroon wax ñun nañ bokk rek loolu tax dialogue national bi ñu doon wax naan dialogue bi danga ko def pour contrer Ousmane Sonko dañ ko def contre Sonko mais après mais da ngay dem ba ci biir gëm ni avec les faits loolu mooy li am. kon Ousmane Sonko waxuma yi waxuma Amadou Ba même dans l'opposition ban taxawaay lan war a am ci Ousmane Sonko tey jii ñi nekkoon ci Yewwi ana pur lan lan def pour Ousmane Sonko ana taxawu ana grand parti mais ana Déthié Fall Déthié mi gars yi ñu bari jàppoon ni mun na jariñoo électorat wu Ousmane Sonko mais Déthié moo nekkoon la mandataire de Yewwi mais Ousmane Sonko bu nekkoon député mais yii yëpp du am Diomaye fay bu nekkoon député mais lii lépp du am keneen ak keneen bu nekkoon député mais list national bu yeeyu boobu mais bis dina ñëw mu leer ñu xam list national boobu man ba léegi dafa naqadi lu tax liste national bu yeewu ñu annulé ko pourtant la liste de Dakar bi Khalifa Sall bi Karim euh, Barthélemy jiite woon danoo xeex ba liste boobu do bokk. li jàllale liste Barthélemy ba mu jàll lu tax jàllalewul liste titulaire bu Yewwi Saliou Sarr bi doon wax mu Déthié Fall kii moo jaawale kii moo dee jaawale mais bi demee ba weesu loolu bi demee ba weesu loolu mais ay xale boo xam ne am na vingt cinq ans amu ko war na bokk ci liste yi ku war a remplacer ñu juumaat fa maanaam njuumte yi amoon ci liste Yewwi Askan Wi dafa bari maa ngi fàttaliku boobu guddi googu Ousmane Sonko ak Diomaye dañoo bind benn communiqué boo jiyee communiqué mi ngi mel ne ñi ngi naan yàq ngeen sunu liggéey mais Ousmane comme bëgguloon frustré ñi mu àndal ci Yewwi Askan Wi ses camarades de Yewwi dafa bàyyi mu sedd mais xam na ni yàq na liggéeyam tey dama lay jox benn exemple le département de Kër Massar Bilal Diatta mi ngi en prison Pastef la bokk man daa am yoo xam ne mosuma ci ànd comme politique gu moom sama yoon mais mun naa wax sama xalaat nan nga jëlee département bu Kër Massar doon bastion bastion bu Pastef Sonko Kër Massar mooy Pastef ñu ne dañuy dem élection ñu def ko département bu bees li Kër Massar di rëy rëy rëy boo ci boole yëmbal Malika li bu ma juumul benn maire Pastef la am mais loolu erreur politique la benn maire Pastef la am mooy Bilal Diatta dugal nañ ko ci kaso ba Bilal duggee kaso tey jii la fa nekk ci maire Bara Gaye nga ñëw ci président conseil départemental bu Kër Massar Pur la bokk nga ñëw ci yël Kër Massar noor fàtte naa turu maire bi keneen ak keneen mais ñooñ lan lañ def pour bilaal génn qu'est-ce qu'ils fait pour Bilal génn bu doon maire yooyu yëpp ay Pastef lañ mais boo jàppee Bilal mais Pastef di wéy di am doole Kër Massar wéy di am ay leader xam ne un parti du rek les militants à la base les sympathisants mais il faut que mu am un leader mais tey ji Kër Massar kan mooy leader Pastef foofu parce que générosité bi Ousmane Sonko ak jàppoon ni ñi muy àndal ay nawleem la mu jàppoon ni ñi muy àndal moom ñoo ma yem man dama jàpp ni loolu moo sànk Ousmane Sonko man loolu laa jàpp. liste député yi ni mu ci amee générosité mais heureusement des fois malheur est bon heureusement sax ba liste suppléants yi jàlle <laughs> mais imaginez liste titulaire bu yeewi jàlloon mais Pastef est-ce que sax dina am treize candidats maanaam treize députés yu ko mën a pare ne il que vingt cinq la ñu am ñi ngay dem di dogaan ba Ahmed Aidara pour mën a mën a pare na ñaar ci parrainage optionnel bi mais bu liste national bi jàlloon est-ce que sax dinañ mat parce que liste nationale dañ ko séddoog yeneen leaders yi dañ ko séddoog yeneen leaders yi kon mbir mi maanaam Ousmane Sonko ay mbiram il faut ñu jàngat ko xool est-ce que ñi ko doon wër yépp moom lañ doon jàppale est-ce que ñi ko doon wër yépp infiltré wuñ ko dugg ci biiram di ko yàqal parce que bari na ci xeex yu Ousmane Sonko daan dugg mais gars yi ñoo Ousmane Sonko ñoo doon waxandoo ah ñoo doon defandoo lu nu sumb ñoo ko sumbandoo mais bi ñëwee li ci gën a garaaw Cheikh Tidiane Dièye ku fidèle la ci Ousmane Sonko mais gars yi m la d lañ njëkk a rey m bi ñoom Cheikh Tidiane Dièye xam na mars 2021 moo xeex xeex bi moom la njëkk a rey créé Yewwi pour man erreur la. looloo tax nag ñoom Dame ak ñoom may Maimouna Bousso loolu la ñu comprendre ba créer Lacoste pour mën a segg Yewwi parce que gars yi ñi ngi wax de ñu naan dañuy tuumal ma Samba ma dem ba lumière dañuy tuumal ma Samba ma dem ba mais est-ce que xamuñu ni léegi dafa jot ñu gësam garab gi am ñu wadd am ñu des parce que épreuve ak nattu bu nit di dund da ciy xamee ay soppeem xam ci ay noonam mais Ousmane ba mu duggee ba léegi ban mobilisation la l'opposition def. en général mi wàllu di yeew yi di keneen keneen ku mu ne ci ñoom Ousmane Sonko jariñ na la mais waa wàllu amuñu fi problème parrainage Ousmane Sonko yekkal leen loolu tax Ousmane Sonko lii di ay avocat di def lu baax la mooy fexe ba mu génn ak nu mu mën a génnee parce que nekkam fële daa am ñu mu arrangé de. te nag ñett du bëre te ñaar mën kenn bu dee ni yaw dangay say mbokk say biir mbokk da am ñu lay xeex Macky Sall ak nguuram di la xeex administration justice takk der keneen ak keneen ñoom ñëpp braqué wu contre une seule personne loolu yombul parce que bu yemoon rek ci diggante ay politique usman duma leen. bu yemoon rek ci diggante ay politique ñu def ko combat politique mais combat Ousmane Sonko lu dox mu metti mooy Ousmane Sonko xeexul rek ak ay politique ba ci sëriñ si ba ci sëriñ si bu sañoon du falu du génn am na ci ñu mel noonu am nañ am na ñu doxe noonu parce que wolof fi nee na ku gërëm rek xaram nga te ku tànn éliminer nga kii choisir rek élimine te am na ñoo xam ne tànn nañ seen mbët kon buñ sañoon mbër mi di Ousmane Sonko ñiy nat ci sondage naan 60 pour cent léegi nag coalition contre Sonko boobu ay Moustapha Diakhaté xoolal ma jàmbal ñooñu ñëpp nga gis maanaam man ñi muy xe man bari na mbooloo mais ñi muy xeexal bari nan man bi muy doog dugg kaso dama defoon benn analyse man ni du ñàkk ni sax kaso ba ëppee jàmm naka de Ousmane Sonko moom damay ragal même bu faatu woon gars yi dina dem xaar ba guddi ñu dem ci bàmmeelam di xool ndax waa ji est-ce que vraiment faatu na bàmmeel ba di xool réellement est jugul waaw jugul parce que Sénégal du yem ci rey la mais da lay dëggate léegi nag mbiri Falla Fleur nga xool wal fajri giñ jortu ni sax da koy jàppale alko wal fajri ba mu sosoo ba léegi contre pouvoir la liñ ba mu jëloon la jël nekk ci maanaam nattu yi sax da ci jot Falla Fleur ay mbiram xale yi ci kaso bi journaliste yi ñu jàpp ni sax Ousmane Sonko kenn du ci am jàmm ñoom Cheikh Bara Pape ale Dambo ñë maanaam képp ku jege Ousmane Sonko du am jàmm xam nga li neex ci mbiram Falla Fleur dama ne lii de comme grand théâtre waaw <laughs> Moodu parce que femme bi ay maintien on continue ñu woo ko procureur na trois mois trois ans juge bi ñëw ne trois mois ñu war ko bàyyi mu ñibbi ñu xaar ban ne mun na am mu ñibbi ñu xëy na que da nga génnee benn correspondance ci prison bi te correspondant bi jërëjëf Pape Sané parce que comme day dem ci prison yi lu bari di leen seeti Pape Sané nee na correspondance boobu bi ñu ko porté plainte ba tey ji mënu wax ni kër gi la Falla Fleur génnee parce que est-ce que du doon ko bëgg a gën a téye ci koso bi maanaam gën ko sonal gën ko fitnaal ci xale boo xam ne jamono ji journaliste yi na yàcc doon ay yambar fanaanoo ñoom ñëpp procès public di am ci diggante ak ma Adji wu nanguwul wax dëgg comme ni ma ko waxee sànq Falla Fleur di def compte rendu sur Facebook ji nga bi compte rendu boobu bi mu ko defee dama dajeeg benn waay buntu Walfadjri mën ma dinañ ko jàpp de ndax xale bi moo leeral lépp te gars yi bëgguñu lu leer man xaw ma Falla Fleur tey jii ñu war ko bàyyi mu ñibbi tey dafa waroon añi ji këram ñu jël xale bi te jël yeneen charge teg ci kawam ne altine dinañ ko atte ci flagrant délit pour gën ko fa tey mais lii soxor la bon la iñaan la xale yi ku leen juróon yërëm leen waxuma la la ñuy dund ca prison ba mais information ya génnee ca prison ba <coughs> mais ku ko génne man déggaguma ab prisonnier bu wax wala ñu yëkkat ab kayit na prisonnier bi moo génnee mais ñi koy wax ci biti la ñu ne te prisonniers yi seen nekkin mais dañ ko war di càmbar li Pape Alé waxoon nee na dafa dem ci kanamu administration pénitentiaire na leen man de ab coli laa te coli ab coli laa bul leen dénk coli nag bul la ko dénkee dañ koy sécuriser kaso bu fa nit nekk dafa war a am sécurité am ay droit parce que fa mu ne teewu fa boppam lekkam ak naanam ak yëpp ab pajom nguur a ko yor waaye boo leen dee ma jébal leen procureur faa la war a génn ñun ko noonu da nga fay toogaat parce que am na yeneen i charge dañ lay dóoraat benn mandat de dépôt ma ne lii comme grand théâtre lii kenn xamul lu mu doon ci àddina def nañ ko ci Diomaye Fadilou Keita lay xam nga mbiri Fallou Fillane lan lay dëggal mooy xale yi ci kaso bi kuñ ci àtte bala loolu rek lay dëggal maanaam mil yi ngay dégg yëpp boo gisee nangu leen atte kun ci atte bala wala fi nag nee nañ ku jur yërëm waaye nag yàlla du nit àdduna yàllay borom ñi ci kaso bi yëpp yàlla na leen suñu borom génnee waaw yàlla na leen suñu borom génnee mais mbiri Falla Fleur du ma ci sori jàngat bi rek mooy wane ni xale yi ci kaso bi tey jii bul leen yóbbuñ ci kanamu juge yi bu leen atte bala kon mooy waral. ñu continuer di leen fa téye parce que bëgguñu ñu génn mais ña leen fa téye nan xam ne amuñu affaire ak xale yi yàlla suñu borom lañ amal affaire te àq day dal dem waxoon naa ko àq day dal te bari na fi ñiy téye xale yi di leen xor ñañal dinaa ci dikkaat beneen yoon demal seen kër seen doom yee gën a dëng foofu ñi ngi volé ñi ngi toje lu ne ñi ngi ciy dugg pourtant ñi ngi muñal seen doom yi boo xamee am na kilifa yoo xam ne boo xamee seen doom yi nga xam ne ñi waruñu yar kenn ñi waruñu yedd kenn mais yàlla baax na di gërëm baax El moo du Diouf di jégalu ñëpp nag di baalu àq ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant di gërëm abdu Top ak euh, waa solution info TV solution info di ñaanal ñëpp jàmm di gërëm ñëpp di leen sant ba beneen yoon incha allah.